mbokk internet yi nga xamante ni yéen a safoo seen émission bi nga xamante ni mooy jotaayu café gi ci biir xam sa démb mbégte la ñoomat tey dellu siwaat ci beneen numéro waaye fas yéene ci àndaat ak saa ne ni ñu koy faral di defee rek ci dalal ay kàngam di ci dalal ay ndaanaan di ci dalal itam ñoo xamante ni seenug yëngu seenug dal lépp moom génnul sëriñ bi génnul suñu borom subhanahu wa taala tey ki ñu ci fas àndal ni ñu koy bàyyee mu nuyoo kook askan wi nuyoo kook mbokk internet yi waaye nuyoo ko itam ak soppe yi nga xamante ne ñoo taamul seen bopp émission bi kon sang bi dañ lay bàyyi rek nga nuyoog askan bi ñu door a xuus ci yëf Sam ñu lay fay di la jox sa wàccuwaay di siyaar kulluhum ki nga xam ne ni yéen a ngi internet bi di bëggee di leen jox seen wàccuwaay. di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam doole Serigne Touba ak Cheikh Ibra. di am mbégte kontaan bu baax si invitation bi nii. Mhm. waaw ñu ngi am mbégte kontaan lu bari. macha allah man Serigne Fall di wax ne yàlla yàlla àggale. alhamdulilah sunu sago ci doole Serigne Touba ak Cheikh Ibra. jërëjëf jaajëfati. daaw naa dégg mag ñi di faral di wax ni euh, saxaar bu jibee gaar ay ca bismillah ñu ngi la ciy déglu. la ilaha illallah la ilaha fa la ilaha illallah la ilaha fa la ilaha illallah la محمد رسول الله فلا إله rasulullah jur leen ngir dee tabax leen ngir ràpp lu ngeen jur day dee lu ngeen tabaxit day ràpp yow jaam Pichi maa ngay wax ak Sulaiman yàlla ya Suleymaan te naan ko ak a neexoon tey fi binde sulen Ndak li ñu nekke ci ak mooy yàlla ya picc maa nga naan ko dul yërëme kenn du la yërëm doomu aadama ni nga diine rek lañ lay fayee barki borom tuba saa ñu tudd bu baax di jéggaluwaat bu baax baax baax baax barki si dafa tubaarkàlla allah yalla yalla xeb xeeb te mottali ci daraje sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam euh, Moustapha Diémé Sikurulaahi Moustapha Diémé Baye Fall Moustapha Diémé ak waar wi nu mu koy dunde ngeen di ñu ci ñu door ñëw ci olofal bi nga wàccee léegi. <laughs> waaw Sam loolu doom dañ ciy sawar. waaw Moustapha Diémé ak Sikar si mooy li nga xam ne moom la ñuy dund sunu sunu lépp turu yàlla wi la. Mhm. waaw ñu xëy di si gontu def ko muy suñu lépp. barke Serigne ngir bëgg guñ ko bëgg moo ko waral nag. waaw barke Serigne Fall yàq ñu yàq lu ñu yàq lu ñu dara tamit ci suñu waar bu ñu waree waar yi dañuy jóg dem def ko ñëwaat toogaat. barke Serigne bu liggéeyal sëriñ bi jotee tam ñu nekk si. saay su ne tamit ñu ngi xool naka la ñuy def ba li nekk suñu bopp di yokk saay su nekk. waaw <laughs> noonu rek la demee <laughs> am na solo tubaarkàlla yàqul dara ci xidma bi waaye yàqul dara yi tamit ndax bëgg la benn bi ci jiitu ba noppi ndax nee naa doomu aadama bi lu muy mën a def ci àdduna ak bëgg defe naa mooy li ci war a jiitu wax nga ko léegi ci ci ci ci olofal bi duma ko du ko bàyyi dama koy lijjanti mu féete boor ndax damay bañ xuus ba ci biir ma mu fànnaawu ma waaw nee nga jamono fi mu toll ndaw ñi mooy yàlla gi mm-hmm. inspiration boobu lan la. waa loolu moom eh, ci jamono yonent yàlla Suleymaan la picc mi moom moo sab xam nga bi mu sabee yonent yàlla Suleymaan ne ndax dégg ngeen picc bi li muy wax ñu ne ko dégguñu ko de xanaa nga leeral ñu si ci la leen waxee na leen picc mi mu ngi naan jur leen ngir dee tabax leen ngir ràpp lu ngeen jur day de lu ngeen tabaxit day ràpp beneen bis mu toogaat meneen picc tamit sabaat mu daal ne ko Euh, doomu adama ni nga diine woo rek lañ lay fayee. Mhm. ko dul yërëmee kenn du la yërëm. beneen picc bi daal ne ak a neexoon tey mbindee fi bindee su leen maanaam ñàkk leen a bind. Mhm. nga xam ne ñoom moom seen bopp ndax li ñu nekk ci ak mooy yàlla waaw. Euh, euh, ci ci ci kii boobu dem na sax ba muus mi naan toskere ñeel na waa ji nga xam ne ni àdduna rek mooy yitteem. Mhm. mu nekk ay mbir yu doy waar yu yu yu maanaam yoo xam ne ni. danga nga siy dolli ko. waaw ndax ci loolu noonu dem na sax ba bis bu nga xam ne ni ñoom seen dëkk géej na taw taw bu taw bu metti ñu ñëw ci yonent yàlla Suleymaan ngir mu ñaan mu taw. Mhm. waaw bi ñu àndee ak moom ñëw ba ci buntu dëkk bi mu fekk benn xorondoom mu sukk comme ni doomu aadama di sukkee jël ay loxoom ak ci kaw di ñaan yàlla pour mu taw daanaka bu ñu jàppee doy doomu aadama yi ak may gi ñu nekkee ba tax nga téye ndox mi ñun say jaam lañ ci biir jaam yi. yonent yàlla Suleymaan def na nañu wàññeeku mhm. yàlla nangu na ñaan gi ci yeneen jaam yu dul yéen <laughs> waaw kon maanaam xorndom bi moo taxoon mu taxoon noonu la demee <laughs> mu mel ni wax nga ko ci jamono yu yonent yàlla Suleymaan bu ñu xoolee jamono jooja ak jamono juñ col nii mu doon ay téeméeri téeméeri téeméeri at dox na ci diggante yi waaye boo xoolee la ma ca wax lépp nga méngale ko ak tey fii jamono tollu tey ban gis-gis nga ci am waaw gis-gis bi ñoom seen seen waxu démb tey lay firndeel waaw ñoom seen waxu démb tey lay tey lay findeer ndax maanaam soo xoolee ba ci yi ni xam nga bi muy dem ci ci ci xur bi di wax ak déggal bi muy dem ci xur bi pour dem xoole ji bëtul kii bi bëtum ndox bi nga xam ne nii mooy kii xaynul xayaatin nga xam ne nii ku ci naan dootoo faatu da ngay dund ilaa abat waaw mais moom dafa mooy bët bi romb ko bi mu ñëwee tamit ñëw na fekk benn euh, si benn dëkk bu yaatu suuf su nooy mu mu jog si ànd ak soldaar yi bi mu ñëwee ba ci bunt bi dafa ne gars yi nañ ko xaar moom mu dugg soldaar yi xaar ko moom kese moo dugg si biir kër gi bi mu duggee dafa ñëw fekk ñu nas benn picc ci benn weñ waaw bi mu tegee tànkam rek picc bi dafa ne ko kookal la mu ne ko man a man la zul xar nay ni mu ne ko lu doon say tànk fii ak fan nga jaar ba egsi fii ba ñuy la war a baare baare wuñ la mm-hmm. xam nga waaye comme ñëw nga damaa bëgg nga waxtaanal ma daal di koy laaj ay laaj mu tontu ko li ko njëkk laaj mooy ndax nit ñi ngi sedde ay nen ci kaw suuf mu daal ne ko waaw nit ñaa ngi sedde ay nen ci kaw suuf mhm. waaw picc bi daal di funki mel na ku meer funki ba wa ba xaw fees weñ bi après ci la zul xer na ni daal di tiit mu daal di koy laajaat ndax nit ñi mhm. ngi boole suuf ak ciment ko tabax ci kaw suuf mu ne ko waaw nit ñi ngi boole suuf ak ciment di suuf mu gën a ba fees <laughs> barab bi mu nekkoon voilà léegi nag ci la zul xer na daal di tiit après dal di taxaw munako ne ko bul ma munako ndax nit ñi ñi ngi tuddu yalla di ñi ngi ñi ngi sabbal yalla ci kaw suuf munako waaw ñi ngi ñi ngi sabbal yalla mu dal di xawa munako ndax nit ñi tamit ñi ngi sangu set sangu janaba munako waaw mu door delu ba melni meron mhm. kon lool yep ay firnde la yoo xam ne maanaam ñun fofu lañu tollu mhm. xam nga ci ñom seen seen waxi dem ndax foofu noonu bi mu bi mu jàllee foofu fekk na benn jëmm mu taxaw ci kaw yore benn mbiib jëmale asamaan waaw mu daal di teg tànkam mu daal ne ko kala mu ne ko mën a ko mu ne ko man la ne mu ne ko sama taxawaay bii de njaaxare la mm-hmm. ndax suñu borom rek laay xaar mu jox ma ndigal ma wal bofte bi te boobu ba léegi yàgg na kon kon kon kon ñoom seen waxu démb tey lay firndeel daal. Mm-hmm. waaw man moom loolu laa ciy jànge waaw <laughs> am na solo dëgg la seen waxi démb ndax waxi waaju baax moom li olof di wax naan borom euh, jaloore borom a koy nettalil boppam seen lañ lañ nettali woon démb tey jii nii dañ koy dund ci jamono kon mooy fi confirmation bi mais dégg naa la te ku dégg li nga waxi dina ni euh, sëñ Moustapha Diémé kon gëstu na wala jàng na. bu doon as tuut ci alxuraan mm-hmm. ndax li ngay wax yaa ngi wax ay olofal di indi ay aaya ay bayit mm-hmm. ni ko gaa yi jàppee ak Baye Fall bi li mu war a doon ñu ni Baye Fall jàngut alxuraan wala warta jàng alxuraan Moustapha Diémé wanewut loolu nu mu demee waaw loolu moom ñun moom lépp lu ñu xam rek gëstu moo ñu ko may mhm. waaw waaye ni ñu war a toogee jàng jànguñu ko jànguñu ko parce que maam Serap Fall waaye nit ki li nga bëgg daf lay jaral saa su ne comme ni mu koy waxee mhm. waaw ñun moom jaral nañu sol suñu dàll ak ba ba fu ñu mën a dem olofal itam li tax ma si sëriñ bi moom a ci soñu mhm. ndax dama mësa ñëw daara ja yàgg na yor na tuddi kerkeraan mhm. xam nga ma yor ko boobu xawma ci dara di ci nabi noonu mu daal ne ma nag lii na nga fexe ba mokkal ko moo tax natto di mën naa ko toog ma jàng ko ba mu jeex saa ma xool ko xam nga mhm. ci laa jóge tamit daal di commencé nag di xuus si olofal yi mhm. waaw man lépp lu nit di jàng rek dinaa ko jéem a xuus lu ma amal njëriñ lu ne rek dinaa xuus dem gëstu ju ko xam ko taarix bu ma dégg tamit bu nga xam ne ni maanaam jàng naa ko taxaw ma niñ ko war a tojee nan la dinaa dem gëstu ba xam naka laa ko war a tojee. moo mhm. tax moo tax parfois ma dugg si olofal sax. Mhm. Euh, nit ki fi mu jàng rek laay yem. Mhm. mais dama siy toj loo nga xam ne maanaam. yow yow mi ci yam daf lay jaaxal ne kii naka la mën a tëjee lii ak lii. fekk ne maanaam lépp gëstu la. ak mu jaral la rek. Mhm. voilà waaw te jaral bi dafa am lu ci doy waar ndax jaral bi benn sax boo ko xool obligation la parce que lu la sa borom sant la. waaw jàng alxuraan. waaw loolu dëgg la waaw euh, bëgg ba bu fa nekkee tam waaye obligation bi dafay dafay jiitu. mu nga te te mooy li ñuy faral di wax mënuñoo ànd ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul yaakaar Serigne Touba. ba noppi ëlbatiku moom léppam di alxuraan ñu ne ñun ñu ñun jàng alxuraan. Mhm. wax ju méngawul kon ñi nga xam ne ñi ngi koy def te wareesu leen. war a waralu leen. Mhm. ak ñi nga xamante ni xëy na umpale woon. Mhm. ndax ñu nekk lan nga leen di wax ñoom. sëriñ bi lépp lu mu am ci alxuraan la ko amee. ndax maanaam léppam ci loolu la tënku. waaw ndax ki xam araf yi ba xam li ci ginnaaw araf yi kooku. kooku maanaam ko wax ne jàngul mooy loolu te maam Cheikh Ibrahima ñu yaakaar tamit dafa jàng alxuraan. Mhm. moo tax mu naan teel naa jàng alxuraan mokkal ko tafsir ko biir ak biti yàlla may ko muy jàng ak di jàngale ak di taalif ba làkk xam-xam yëpp nekk arif dem ba jeexal xam-xam sariya nekk seulement si amul tariixa mu ne eggul ci yàlla mën la yeggale ñu listixaar ñu wan ko mbar may seddale mooy Ahmadou Bamba Xaadim Rasul waaw ci la ci la dégg sëriñ tey ba Dakar. Mhm. mu xëy dem fa waaye mbir mi muy xool ci moom nekkul nekkul ci sëriñ bi Mm-hmm. waaw ci la tëdd guddi li si xaar ci lañ ko wanee leeru sëriñ bi mm-hmm. waaw mu topp ko ba ba ba ba ba agsi si moom mm-hmm. waaye sëriñ bi kàngam na ku jàng alxuraan la waaw moom ak moom ak uh, rakam sëñ Saliou Fall daal ko far waaw ñoom ñëpp dañoo jàng alxuraan dañ leen a jàngal ñoom ñëpp si famille bu jàng lañ bokk dañoo jàng alxuraan mokkal ko ndax Cheikh fa Fall Lamp nee na man am naa fukki ndey ak ñett waaw soxna maam Seynabou Ndiaye moom a mujjee jur kon maanaam kooku <laughs> kooku kooku leneen la léegi kàddu yooyu soo koy dégg dafa lay euh, maanaam da lay yóbbu feneen kon kon yow kan mooy Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. voilà moom léppam yàlla la. léppam yàlla la waaw Cheikh Ibrahima léppam yàlla la ndax maanaam doomu aadama bi li muy toog di jàng alxuraan moom dafa jàng alxuraan xam ko ba pare ba ko fa. Mhm. dem di jëfee alxuraan. Mhm. waaw kooku mooy Cheikh Ibrahima Fall. macha waaw ndax maanaam kii ci jàng bi rek la yam amaana mi ngi koy jàng waaye moom. li alxuraan di wax loolu lay jëfe parce que nit a ngi jàng alxuraan ba pare te fekk na jëfewul li muy wax. Mm-hmm, mm-hmm. saa yi su nekk nag. Mm-hmm. waaw waaye Cheikh Ibrahima Fall bi wax ne théorie ak pratique. voilà dafa boole ñaar yi. voilà moom nag da koo jàng ba noppi jël ko dëxañ ko ci biir dënnam. di ko doxee. moom léppam alxuraan la. te daan génnul alxuraan boo gisee mu yilif ñi mu mënoon a yilif. ku ci mel ne. Mm, eh, ku ci mel ne eh, kii waay eh, nu mu tuddati ki nekk kees waaw Cheikh Abdoulaye Yakhine nga xam ne kàngam la. Mm-hmm. Euh, kàngam la dàllam bu bu bu ko simee mën nañu boolee suñu tànk ñun ñëpp ci biir dàll bi. ak ku mel ni Jëri Waadaan waaw maam Jëri Waadaan da daan fëgg buntu suñu borom bi. Mm-hmm. waaw di wax ak moom te terewul moo xam kan mooy Cheikh Ibra. Mm-hmm. waaye Cheikh Abdoulaye Yakhine dafa gën a yéeme. ndax moom amu fi ndey amu fi bàyyi dafa jógee feneen Aldul Ajaas la jógee maanaam maanaam ci Makkatal Mukarrama la jóge bi muy am fukki at ak ñett la ñëw Sénégal. maanaam te boobu noonu suñu borom ma ko wan leerug Cheikh Ibrahima Fall mu war koo topp ba ñëw ci moom. waaw kon maanaam te bi mu ñëwee it eh, eh, dafa daj ay coono ci yoon bi ba agsi mhm. waaw ndax maanaam jàpp nañ ko ci yoon bi jaay ko oh, comme comme comme ni ñuy jaayee jaam. Mhm. mu mu tar bi mu nangoo toog ca fañ ko jaayee ba Cheikh Ibrahima Fall fekk ko fa. Mhm. te lu jiiti loolu Cheikh Abdou Khadre Jeylaani moom moo ñëw ci kii góor gi nga xam ne nii moom moo ko jëndoon daal ne ko am na leeru Seydina Muhammad gu nga xam ne nii mu ngi may xeeñ fii si biir kër gi pir pir boobu pir la ne woon mm-hmm. waaw mu daal di génne góor yàlla yi na ci biir kër gi yëpp nekku ci mu daal ne kan moo des ci lañ ko waxee ne ko Cheikh Abdoulaye Yaxin boobu moom mi ngi ci àll bi di gor ay garab garab gu mu romb nga wow sax da ngay tooy kon kon waaw te léegi kooku bu nangoo jël boppam jébal ko Cheikh Ibrahima Fall lamb kon. <laughs> kon kan mooy Cheikh Ibra waaw ndax moom ñi mu yilif ñëpp kenn ko ci nekk yilif jamono rek. moo la mm-hmm. taxoon a jóg. Mm-hmm. waaw macha allah. nato di karkaraani lawliyaar yi. nga may ñu ci ay bëyit. waaw. nato di karkaraani lawliyaa ku weddi laa jël xayrul anbiyaa yi mboole muriidi déglu leen maye leen mbirum ay bu leen li may nelaw nelaw du tee yeete li may gëlëm gëlëm du tee woote xam naa kuy nelaw nelaw lu ngir reere waaye bu defee yeete dootu yandoor yaa sañ saña ak mbugal yaa katan gu ànd ak coobare moom ca lay loo gis mu xew mi ndef munul sañul dogal bu am day la ko ki xew-xew ngir kuñ gisul war naa la ko ki sew-sew te yàlla doo ko gis ba xam moom la mi def loo xeej nga ji buur bi lànk lay yëf ku gën a gën a gis na toom yaa ku jekk bay bay gën a jege peya te yàlla xarit balay musibal ngir daraja ko mbaate muy ko baal la yàlla jox xarit ba ci maqaama te munu koo jëf na tulanu koy xayma te balaa mu la woolu ba jong la mbir yaa faaw nga muñ yeen ba aw ca tànki mbir yaa la nabluwaanakum li saabiriina asibana sulika afidina moom lan waxoon yonen yaak labdaal ya ak saaba yaa xutbu yaak waliwu ya xeejam ya cay see xalame mbir yaa moon ci baawaan mbirum sëriñ gaawaan woyox si baatin seetal baramuñ gañ naan rayo ba sax yaa di wat ni ko ba ta teew di wax alxamdu mata ba naan ko ni ma labdu seetal ma daan yar ma daanu ci teen ñu boole ko ki gaynde yeew ko ci ceen gaynde ya fab di mar wa miire ñu fab ko jebal saar yarab yay waare yaxya yonent yàlla Yaxya natoom wa dootu am ci Sénégal noon yaa ko jàpp xar jamam ja ñaari gaal muy bëgg a wax yàlla yabal te naan ko demal ne ko bu ne dootu doon ma sool yonent yàlla Yaxya buur baa ko reylu woon buur baa nga naan jàppal ma yaxya dagal ma bopp bi tegal ma ko ci balaat yaxya ngay dawuti àll ba seytaan leen ko kar sobli ku jëm mi doomu aadama mag naan ko yonent yàlla yaxya yawana looy daw ma nga naan ko mag noon yaa may dàkk seytaane mag naan ko xoolal ni nga mel xoolal li la yàlla may mën ngaa wax garab gi xar nga dugg ci biir garab gi soo nee garab ga tëjul mu daa tëju bu say noon demee nga génn doxiwaat say tëj yonentu yàlla yaxya ma nga naan garab gi xaral garab ga xar yaxya dugg ci biir garab gi ne garab ga tëjul garab gay tëju saytaane jàpp ca catul mbubuma mbubuma des biti ba noon ya dawee si saytaan ma leen kar mag naan leen ay ko ngeen di war xanaa du yaxya noon yaa nga naan ko ñun Yaxya la ñuy wër seytaane mag naan leen Yaxya ngi fii ci biir garab gi noon yaa nga naan ko nit nu muy duggee ci garab seytaane mag naan leen su ma weddee catal mbubu maa ngi nii di feeñ noon ya bég tey kontaan jël seeni jaas yaa ki semmiñ ña ngay xaar garab ga booleeg jëmmi Yaxya ca biir garab ga ña ngay xaar ba egg si sa xolam ba Yaxya Ya yabal jibrilu te nan ko demal ne ko pune do tudon mar solo ay bo xalame sunu maam ibrahima bangla tam alilan akalima non ya ko génne muy bay la ba yalla rendi loko ismaila ñu dellu taalal ko ca namrot rot def ka ca bir yalla seral xolam ba setal yenen bañ naan yankooba di palam tunne ba dadar seen mooy rangooñam ginnaaw ba yuusufa sanko ba fum jekki sakku yaa safa ay boo xalamee yuusufa mbokkam ya dellul xalam ka sambaak tumaam ya dootoo ragal ku dul ilaahi naasi dootoo yox yoxeeti ngir pexem xa naasi natu julit de yox ay maqaama mbaa mi bi ñaaw teef keroog bisib xiyaama natoo di kerkeraani lawliyaa ku weddi laajal xayrul anbiyaa mas nañ ko génne mu dem jiraan ñu di koy sànni doj ta naan ko dey njabraan mon yaa ko gëna màkka ngir bañ diina bis rabbi la dem madina fanaan na cim xuntu fanaan ci doj ànd ak Babakar lu nekk muy dej fam ko tàbbal ko ci biir sarwaan jox ko tooke teewu ko doy kéemaan bisu keroog la yàlla wàcci saaru naasi ak fallaxi moo ca xayru naasi bisu keroog la yàlla daaneel kéefar yëkkati lislaam ni doy na tiitar barke borom Tuubaa <laughs> moom de xanaa far mënoon nañ laa bàyyi sax nga far mujj daal di koy kii rek mu kii mu daal di kii nu kii ndax nag dex di yàlla loolu moom man ñemewu ma koo dog ndax euh, tubaarkàlla yal na yàlla sàmmal la baat bi sëñ Moustapha amiin euh, noo ngi ñaan ci dara ji sëñ Tuubaa yàlla sàmmal baat bi te may la nga yëgaleeg sago euh, mu mel ni nanu njëkkanteek waxtu wi ndax waxtu wi dab nañu bu baax a baax waaye xam naa benn ba ñaar jàpp ñett rek ñu jeexalee ko bi ci njëkk mooy Moustapha si sikarsi Moustapha ak xiin yi Moustapha gi. Moustapha ak kuréelu xasaayit gi. nu mu demee. waa ni mu demee mooy e, benn du dem bàyyi moromam. ndeysaan. waaw noonu rek la demee ba na maanaam sëriñ bi moom lépp lu mu newoon rek e, maanaam lu gën la. Mhm. Ari Seera te ñun buñ ne nee Cheikh Ibrahima Fall la ñu yaakaar. Mhm. sëriñ Touba moom la ñu jox suñu lépp. kon maanaam ñoom ci lépp lu ñu ne rek ñun dañ ciy nekk. Mhm. ndax loolu mooy tax ñu ne murit bi ndax euh, bala nga doon murit dangay doon jullit. Mhm. door doon murit. waaw balaa ngaa doon Baay Faal tam da ngay doon murit ba noppi door mën a doon Baay Faal. Mhm. kon maanaam dara du dem bàyyi moromam. jërëjëf barke Cheikh waaye garaatu Cheikh Ibrahima moom leneen la. moom leneen la moo tax. damay damay tiit sax bu ci nit di wax leneen di ci di ci laam-laamee. ndeysaan ak maam Cheikh Ibrahima Fall. ndax Serigne Touba. Mm-hmm. du faat waxtu. Ah, waaw mësta tooñ boromam ci dara. ni mu fi nekkee liggéeyal boromam ba ni muy delloo mësta tooñ boromam. Mm-hmm. kon maanaam du jël ku mel ne Cheikh Ibrahima Fall julliwul woorul. Mm-hmm. mu mën koo dëgëral ci biir këram. Mm, mu yor léppam ci biir këram barki maam Cheikh kon kooku war nañoo xam kenn mooy Cheikh Ibrahima Fall Lamp hmm. di leen xamal ne jullit akkan la barke maam Cheikh Fall làmp hmm, hmm. kuy wër jullit baag si si maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp da ngay dëpp góor piir gar bi piir buur dammel waaw moo tax ma naan boole daa bëri <laughs> Cheikh Ibrahima moom leneen la barke maam Cheikh Fall <laughs> xam nga moo tax ma naan xii nii galañu buur la kenn du ko tëggal badoo la Wow, te Cheikh Ibrahima Fall làmp foofu la newoon. Hmm. barke maam Cheikh Fall. moo tax dañuy dellu santaat rek. <laughs> waaw bu baax a baax baax. <laughs> waaw yal allah rabbi ñu gis ni Moustapha jeme grand théâtre wajon na ba wara a yegg. jamonoog ay wayam ak i xat-xatam. ndax romb na duñ na Sorano. Mm-hmm. ndax fi du lu ñuy dépassé. waaye mbir muy yokk. nga nga nga ngay di ak mom projet boobu. waaw loolu li ko waral mooy euh, fexe ba euh, ba nga xam ne nii am nga sa public te public bi maanaam doo leen forcer woo leen sa bopp. Mm-hmm. Euh, looy seq ñoom la saay su nekk nga di leen ko lebal saay su ne ñoom it ñu am yéene di la ko fay ak mbégte. Mm-hmm. tax moo tax bi ñu tàmbalee cinéma awa def nañu fa trois ans. Mm-hmm. di ko def bi ñu de bi ñu suñu suñu quatrième année waaw ci lañ ne nag nañu dem Sorano ñoom ñoo ko wax. ci la ñun tam ñu songu Sorano te balaa ñuy songu Sorano sax ku mel ne Soxna Khady Fall koy nuyu. Mm-hmm. dafa ne carrément déwén Sorano la. Eh, bi déwén boobu ñun bi ñu waree dat dañoo ñëwaat cinéma awa pour ut dat ñu ñëw fekk ñu jaay ko. Mm-hmm. loolu moo waral suñu dem Sorano far force. Mm-hmm. ñu ne kon amul dañuy dem Sorano parce que fi amul fi beneen salle bu nga xam nañ ko fi def. ci lañ dem Sorano suñu borom defaral ñu. taw suñu première Sorano. ñu dem def lu lu kawe njortu ba nga xam ne ni képp ku demuloo da ngay ci lu tax ñëwuloo. Mhm. parce que di nga fa gis lu nga xam ne nii képp ku dagg tigeem ñëw toog rek. Mhm. dina bég bégte bu nga xam ne nii maanaam su ko mënoon a dagg fukki yoon daf koy def. barke maam Serap Fall. Mhm. ci waaw ci lu nga xam ne nii lépp dëgg la. lépp sëriñ bi la. bi ñu ko delloo te tamit ñu defaat ko am na ñoo xam ne dugguñu dañoo ñëw mënuñu dugg barke Serap dañoo ñibbiwaat ak seen sañse parce que misaal bi na mu fees ba gars yi tëj yi. kon loolu ñu ciy dellu santaat yàlla. Mm-hmm. léegi nag doomu aadama li lay li la may loolu danga koy xam ba tax nga xam naka nga koy téye. Mm-hmm. xëy na nag mënuñu matal lépp ci jaamu yàlla yi. Mm-hmm. mais lépp luñ ci mën. ñu ngi koy ñu ngi koy def suñu diggante ak ñoom ba tax lépp di rafet. bi ñu génnee foofu tamit bi ñu xëyee ci laa ne suñu jëwriñ Boubacar Diop ma ne ko mbir mi de dañ koy yóbbu Grand Théâtre barke maam si rafal ci laa ko jàpp sama xol man fas ko. am na sax suñu nga xam ne suñu yaanu nañ nañ delluwaat Sorano <laughs> man leen waaw rek. bi ma lijjante bi ñu toogee lu mat 4 mois 6 mois ci laa ñëwaat si booba nekkoon nañu utal date utal date ñu ut benn date ñu xool dat bi baax ma jël sama xéewal ñu mhm. ànd dem yóbbu suñu avance. Mhm. ñu joxe suñu avance ñu jox ñu suñu suñu suñu date contrat bi. Mhm. gars yi validé ko. waaw ba fi ma wax yow nii suñu avance mi ngi fa tëdd. ndax ñu ngi ko waroon def join bi bi bii passé lañ ko waroon def. mais yàlla moo dogal ak tawat gi nii. dara mënul yëngu. ñu toog jàpp si yàlla xam ne euh, dafa naa gën. xëy na moo tax mu demee noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. barke Cheikh Fall. waaw. macha noonu daal la demee ba ci eh, stade bi nii sax ñu ngi si doon waxtaan amoon nañ ci ay projet yu bari. Mm-hmm. te boobu du nekkul arène nationale. kii bi stade bi. Euh, bi ne syndicat. syndicat su mu tuddati Alsane Djigo Alsane Djigo waaw. te foofu sax jéego nañ fi mais dañoo gisul woon directeur bi waaye bu ñu ko gisoon kon. balaa ñu doon dem foofu sax dañ doon dem foofu parce que ñun. suñu pas-pas dépassé na foofu. Mhm. waaw ñun li ñu gëm mooy. Mhm. comme ni ñuy waxee comme comme ni nga duggee ci baas muy benn nit taxaw nga def li ngay def. Mhm. fukki nit taxaw nga def li ngay def. kenn taxawul nga def li ngay def. nga ñëw war a tàmbali tam sa heure jot kenn ñëwagul nga tàmbali. ñun loolu yàlla moo ñu ko bindee. <laughs> moom moo tax lépp lu ñuy def rek dañ siy jiital ne. sëriñ bi moo ñu siy njëkk bu ñu tàmbalee rek moom dina àggale. macha allah loolu boo ko waxee xam naa ci dara max maag yow ba Sorano maag yow ba Thiès ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na euh, jotaay bi loolu sababu ko mais léegi lan mooy di euh, ci kanam parce que Moustapha xam nañ ko ci xeetu single yeeg yu mel noonu yu mel te dégg naa jamono yi da nga dëxuñu dëxuñu ko doy waat di am lan lan lan mooy li nga li nga préparé fi ne pour war koo waajalee. fi waaw li ñu préparé nii xëy na li ñu génn nii sax single bi li li bokk si woon. Mhm. dama toog nii rek di koy di ko wayantoo. ndeysaan Pambay mi ngi naan ma yow lii lii rab la nga naan da nga koy génne lii lii comme comme ni ma ni ma tegee way bi ak sama ak sama gémmiñ xam mm-hmm, nga mm-hmm. kan moo ne woon du ñu dem Touba da ngay kàcc dañuy dem Touba teg sa ndomal tànk foole la tey moo gën a yomb li nga wax ñoo lànk dañuy dem Touba mun ma yow fi ñu toll nii yaa ngi rab man su ma ko dugalee ba pare di nga xam la lañ def lan la barke Cheikh Rafal mm-hmm. yàlla def na mu nekk lu lu doy waar euh, lépp lu may def tamit balaa ma koy def dinañ si waxtaan ak ñu ma si war a waxtaanal ñi nga xam ne seen seen seen xalaat bu rafet doy na ma. ko su ma ne Diorine Omar gi maa ngi koy nuyu moom it barke maam Serigne Fall. Mm-hmm. amul lu may dugg te du ko yëg. Mm-hmm. comme ni ma ko sama Diorine di boobu Boubacar Diop Diorine euh, Omar gi noonu la ko yëgee Diorine Pambe noonu la ko yëgee Diorine Mourtala Seck tamit noonu ak ñeneen. Mm-hmm. dinaa leen envoyé na lii laa bëgg a def. barke Cheikh Fall déglu leen ñoom seen xalaat luñ ma ci def looloo laay def li koy waral mooy bëgguma jëfee sama sama bëgg-bëgg bopp kese. waaw parce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk. am na si loo ma mën a apporter si sa kàddu. waaw barke maam Serap Fall. Mm-hmm. moo tax faaw ma leen di déglu. Mm-hmm. moo tax ma leen di déglu ci côté boobu. mais li ne sunu kanam. dëgg-dëgg. Mm-hmm. mooy grand théâtre bi. waaw bu ñu ci génnee tam am na ñeneen projet yu nga xam ne nii mi ngi suñu kanam bu ñu jógee màggal tamit am na comme histoire yi nii may wax nii. am na ci beneen anam si beneen facette bu ñu koy liggéey. benn par benn. a waaw loolu dama ko bëgg a def album mais bëgguma ko génneel sama bopp parce que nekk international. waaw dama dinaa si def ndax man sama premier album sama deuxième album sama troisième album ba ci quatrième amul kenn ku yëkkati sa xéwal jox ma ko pour ma def sama album. Mm-hmm. amul kenn ku si jàpp pour ma dem def ko. mais xam naa ne moom lu ma liggéey ba bëgg ko def ak nu ma def su may dem. liggéey sànc dajale sama xaalis dama koy def su mënee ak ku ma mën a voilà mi ngi noonu waaw waaw macha allah noonu la demee barke Cheikh Fall mais lii moom bëgg nañ ko def mais mm-hmm. bëgguñu bëgguñu koo génnal suñu bopp bëgg nañ mu àgg fu sore sore sore sore sore waaw te xam nañ ne Euh, fii ku ñu gungewul de day metti mm-hmm. waaw mm-hmm. ñun danoo ragalul rek waaye kon dañuy toog barke maam Serap Fall waaw ndax amaana tar na métti na mm-hmm. mais saa su nekk dañuy ànd ak suñu gëm-gëm xam ne pas-pas waaw pas-pas ak kàddu sëriñ bi bu leen yàkkamte lépp mi ngi ci kanam ku seddu dinga nga seddu moo tax ñu toog def nànk waaw jërëjëf Cheikh Moustapha waxtaan wi neex na am na solo waaye gannaaw yëf yi moom dafa am ci ay anam yu muy tëdd yu muy doxee tam te wax dëgg yàlla suñu mbokk internet yi dañ leen di bàyyi xel saa su ne xam naa nag li muy wax ni di ngeen ko déglu ci biir ci biir émission bi di ngeen ko déglu ndax am na lu lu lu lu loo xam ne xam naa ne ku ko déggit fi ne tuwaatkaal la xam naa ne rab yi muy wax di nga xool ndax day rabam du rab di ngeen ko dégg ci biir yëf yi ndax dina ànd ak émission bi incha allahu rabbi ñu jox leen ko en exclusivité incha allahu rabbi fii ci biir sant la ñuy def gërëm ñaanal leen kenn ku ci nekk li bëggam ak mébétam ak yeneen yàlla na yàlla sama borom jàppandal lépp ci daraje Seydina Muhammad alayhi salatu wasalaam barkeb Cheikhul Khadim barkeb sunu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye barkeb Serigne Fallilu sunu yaakaar di siyaare bu baax a baax sunu wasila Alaaji Cheikhu bi mbacke moom Cheikh Modou Fadal di ko ñaanal saa su ne sama borom yàggal ko te wéral ko waaye di siyaare xalifaam ba Cheikh Abul Baraka ibnu Cheikh Modou Fadal suñu borom saxal ko fi te wéral ko ci daraje Serigne Touba waaye ki nga xam ne moo fi Serigne Touba Cheikh Mouhamadou muntaha ibnu Cheikh Maodo Bachir noo ngi ñaan sama borom saxal ko te wéral ko te téeñal ko yan wi ba mu àggale ak sagom te nu ànd kook moom Moustapha dañ lay bàyyi nga tàggatoo daal di tëj émission bi ci anam boo ko bëgg a tëjee rek te ñëpp bëgg rek ba beneen incha allahu rabbi. jërëjëf sax bëgg di ñaanal Cheikh Modou Fadilou Fall suñu borom guddal fanam wéral ko ak bépp soppe bi nga xam ne nii yéen a ngi bàyyi xel ci. ci ci ci ci télé bi nga xam ne nii mooy Diass ji TV mm-hmm. waaw ñu ngi leen ci bégal bu wér a wér barki maam Cheikh Fall di wax ne rek na gaa yi xaar sortie single bi incha allah samedi bi muy le 5 septembre muy ñaari rakkandar yi incha ci la ñuy génne single bi bu soobee yàlla incha allah ñu ànd moom dem màggale ak moom waaw barki maam Cheikh Fall noonu demee barki sëñ Tuubaa kon xanaa dañuy kii rek lu gàtt rek ñu tëjee ko waaw barki maam Cheikh <laughs> mustawa rasulullah yonen mustafa rasulullah yonen la ilaha illallah la ilaha illallah Mustafa Rasulullah yonen ñu ngi ñaanal ñëpp ci barki Sidina Mohamed suñu borom wéral leen kattanal leen jërë ngeen jëf Diassigui TV ca kaw ca kanam ci lu baax barki maam Chérif Lamp ba fi ñu dégg tele yu mag yi ñu dégg leen fa Sam bég nañ bàyyi ñu dagg ko foofu rek jërë ngeen jëf war sëñ Fallou